loolu kenn wax nga ko moom Serigne Mountakha. moo ko wax. te mhm. mu ngi circulé ci YouTube bi. Mhm. moom Serigne Mountakha. Serigne Mountakha Mbacke. Mhm. nee na Baye Fall bu dëggal bu ne moo ma gënal sama jëmm la wax. Mountakha loolu ñëpp dégg nañ ko. mu dell wax ne Cheikh Ibra nañ ko bàyyi jagleem. ñépp dégg nañ dell wax ne lépp Fall. ñëpp di ko dégg Serigne Mountakha nee na lépp Fall la. kon ay waxam laay wax sëñ Muntaxa moomam jotaay bi kon lépp ci moom lay dellu noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi allahumma amin yàggal fi ñuy liggéeyal yàlla ñëpp allahumma amin yàgg laa ko déggoon ci mag ñi ah yéen bu bi dana ñëw de dana jëkk ñëw jàkkaarloog yéen sëñ Fallou Mbaor waxtaan nañ ci keroog bu ñëwee dafi fekk ku ko mën a tinu